mbokk yi asalaamaaleykum wa wa barakaatu. ñu ngi nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ñëpp te di leen seero di leen balu aq di balu aq ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom defal ko fan gudd ak wér yaram di nuyu mboolem jullit yëpp it. di am mbégte bu baax a baax di ñëwaat ci seen émission bu am solo boobu nga xam ne mooy émission gàggantiku di émission boo xam ne seen seen MKTV muy seenu Muxaddamatul Xidma TV moo leen koy defal di seen mu Grande Mosquée de ci weer wu nekk ñaari yoon le 23 ak le 9. émission bi nag dafay aju ci ay laaj ak ay tontu yoo xam ne dafay yitteel jullit yi ci seen diine ak ci seen mbir yi dundu àddina ñu ciy dalal ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñoom lañ koy àndal ñu ñu ciy gindi. tey jii nag ñëwaat nañ fii ci Eh, kër sëriñ Bakke Abdourahman ngeen xam ko muy mufti di borom xam-xam te ñu meen ko bu baax a baax ci seenu Muxaddamatul Xidma TV ñu ñëw fi ngir fas yéene ànd ak moom ngir ko ci suñu bindu tey xam ngeen ne bokk yi weeru koor jub na eh, li des ci suñu diggante ak koor gi fan yu néew la kon jaadu na buñ ñëwee ci sëriñ bi eh, li ñu koy laaj tey mu aju ci koor ak lu ci aju ngir jullit yi man koo yóbbuloo man koo waajale seen koor ngir fàttaliku nafar kon sëriñ bi tey e, ginnaaw bu ñu la nuyoo jox la kàddu gi nga nuyoo dañuy ñëw ci nga gàggante ñu ci bind yoo xam ne danga ñu koy jox ci jëmmi koor ak ay atteem ak ay tegginam kon sëriñ bisimilah aouzu billahi min ashaytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar euh, sëriñ Abdou Lahad maa ngi leen di nuyu sëriñ Abdou Khadir ak mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ëttub xam bu am solo bii di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru Chaban ak weeru Ramadan bu mag bi ñu dëgmal. noonu nga ko waxee weer bu am solo la wax ne euh, bu jub see jullit ñi war nañoo gën a bàyyi xel weer woowu. Ah. nafaraat buntu boobu. Ah. ngir bu dëkkee ñu mën koo jox ak li ci nekk ci ay njëriñ ak yiw ku ko màng incha allah taala sa mbir mën naa jekk adduna ak alaxira yàlla na ko yàlla defal kon sëñ bi ñu gaaw njëkkante maanaam nga euh, laabira ñu ci lan mooy yàqu koor kon maanaam buñ ko duggee loo xam ne su ko defee moom kooram yàqu na waaw yàqu koor bari hmm. mooy lépp luy tax a dog bokk na ci mabbu yéene masalan tey ki jékki-jékki ni wóoratu donte lekkut naanu kooram yàqu mabbu hmm. yéene day yàqu lekk ak naan day yàqu Euh, jaxasoo ba cub ramadan wala génne mam ñi da yàq bu dul mm-hmm. ne waroon nelaw génn teew day ko ki nga xam dafa nelaw génn te yow moom day dem sangu ji mm-hmm. fóot ay yéreem waaye koor yàqu day focc ay cëram wala muy wala muy xalaat ba génne ko mm-hmm. koor bi am na ci yoo xam ne bu yàqoo du yem ci fay bis bi waaye kafaara moo lay war yaa ko tey waaw mooy ki mabbu yéene ki lekk tey ko wala mu naan te tey ko wala mu jaxasoo wala mu génn mën tey ko yii moom ko def tey ko te amul benn ngant amul benn lay woo ko teg ba sa yàqu na mm-hmm. da ngay fay bis bi wala bi kafaar <coughs> te kafaar mën naa doon woor ñaari weer mën naa leel juróom-benn fukk miskin mm-hmm. ñaari yooyu eh, moo fi nekk léegi su ko defee yooyu it mën naa bàyyi xel baax a baax eh, ci mazhab Maalik nag am na yu ndaw ndawaan yoo xam ne nit ñi nañ ko bàyyi xel mm-hmm. ñoom dañuy wax ne buntu yi nit am muy bakkan nopp bët lépp lu fi jaar ba àgg ci put gi mu yëg ko te yàqu ko doon ci teerul ci waaw ku woor dañ koy tere muy tuufu bëccëg dañ koy tere bët bu noppam da metti mu di ko toqal bëccëg maanaam ku ci amoon ordonnance yoo xam ne looy def bëccëg la ci sa bët wala sa nopp wala yu mel noonu wala wala waaw nga xam ne bunt yi jaar jàll la hmm. mën nga ko soppi di ko def guddi maanaam bu jant bi sooyee léegi ci ngay tuufu bu dee luy def ci nopp ci nga koy def ndax lépp loo loo loo def ci sa bët mu wàcc ba ci sa nga yëg ko ci sa sa sa bëli hmm. yàq ko lu mel ne piqûre ak perfusion ak yooyu nag da yàq ko bu dee piqûre nag du yàq ko perfusion nga xam ne dafa taxaw taxawaayu lekk mhm. waaye piqûre moom du yàq ko nit ki naa woo ba noppi piqûre mhm. euh, ndax loolu du aw ñam mhm. bu ko def perfusion nga ko defee day taxaw taxawaayu ñam loolu moo yàq ko mat naa mat naa bàyyi xel baax a baax euh, bi ci des it saxar saxar bu dee cóolu cin la da yàq ko maanaam nit ki bu jubloo tiim cin li mu du ndax loolu fi ne ñaari jigéen ñi togg sax seetlu nañu buñ nappee. duñ duñ xiif loolu loolu day mel ni taxawaay ñam mm-hmm. kon coolu cin da yàq ko. Mm-hmm. saxaru cigarette da yàq ko. Mm-hmm. saxaru cuuraay da yàq ko. saxar yi daal nañ di yàq ko daal ñu jégalu mooy matt ak këriñ waaye yeneen saxar yëpp bu ko nit ki defee da nga yëg ne am na lu mu jël si biir ba tax wàññi na sa xiifaay. ministre bi liggéey ci bant nag waaw bu dee pënd yi nga xam ne yëpp ay pënd la bant ak poussière yooyu na moytu kam kàttanam ya ci des jégal nañ kon nit ki di di tabax wala mu ko dugg ne jégal nañ ko kon li gën rek bu ko mënee moytu jël jëfandikoo yoo xam ne ay masque la yooyu waaye lay rëcc di yàlla moom incha allah dañ ko koy jégal it mën naa bàyyi lañ ci sib moom koor yuñ ci sib koor bokk na ci liñ ci sib bari na moom itam di nelaw dëkk nelaw mhm. jàpp ne na waa war rek dootuma def dara xare bi gën a métti ci xare mu Badrul Kubra mhm. kon fukki fan ak juróom-ñaar ci ramadaan la kon mag ñu baax ñi ak saxaaba yi yërëm sala sa dañ daan woor ba noppi ne ci ay seen liggéey mhm. kon koor du ngantul bu ma xasee woor du ma rafet dara te day bëgg nga feesal lu baax looy doon def na yokk fii mag ñi baax ñi xam nañ ci ñoo xam ne ay jàngalekat lañu woon bu ñu ramadaan masaan dikk dañuy bër ndax lan dañuy bëgg a yokk seen jàng moom naa ci ñu mel na ñoo xam ne mooy bu bi Mbàkke wax nañ ne bu Ramadan dikkee day bi set day jàngu kaamil macha allah waaw te loolu bokkut ak li bi naa fi la bëgg de ñoom dañuy bëri ngir mën a gën a yokk seen jàmm yàlla ba bu koor gi jeexee ñu mën a yóbbu lu bare bari kon lépp luy nuru euh, woyofal bëgg koo daw dañ koy sib ci koor dañuy sibit nit ki di woor di mos aw ñam mhm. jigéen ñi togg tàngal café wala defar ay ndox yu mos ba xam sax naag sa fóot ndax dafa wóor uh-huh. ndax lu ci rëcc daal da yàq sa ko man damay faral di wax sax nag ne bokk ci xam-xam daal uh-huh. ni daal war naa a am expérience u ci danaa ko xoolal moom saf te duma ko mos mm-hmm, uh-huh. tàngal attaaya fii rek boo ko yàggee def da ngay xam ne lii su ma ci defee nangami bekk wala nangami kudd suma saf jëru mos loolu xam-xam la war doon daa ne bokk na ci ñàkk xam-xam ak télé lu fee mosuma ko du xam saf wala ku jàng togg moo ko waaye fexe ba tàggatu baax na kon yooyu it dañ koy sib euh, ngir ne am na ci yoo xam ne yit dañ koy sit ngir ne daa mën a indi lor bu mel ne ku nàmpatal maanaam tey mën nañ ko misaal tey mooy ñi nga xam dañuy jël deret mais deret ndax mën nga caa jëlee am miir ba tax lu yàq sa ko daal waaye ki dara jotul moom nga xam ne moom xam ne bu ko defee du ko wàññi dara kooku garawut waaye daal sib nañ di ko def ci bëccëgu koor ndax euh, mën naa am fii fekk ci sib nañ it di soccoo bant bu tooy mhm. maa tey mën nga xam ne dentifrice nga di ko jëfandikoo bëccëgu ko yooyu li gën boo dogee ba noppi bala ngaa tëdd nga def ko ak boo xëddee balaa waxtu balaa jàpp jot nga def mhm. ndax moom dañoo bëgg ni ki saa bu lekkee ba noppi mhm. bari fii dañuy nelaw ba yow di ko def fekk li ñu jublu dëgg mooy ñam yi des sa gémmiñ nga dindi ko bala ngaa tëdd boo yeewoo yëpp ba xewlu nga dindi boo demee ci dëkk taax yi doom da gis na ñoom dañuy ndekki ba noppi doog a doog a ah, patu waaw ah, parce que dëgg dëgg la la war doon ngaa war ndekki nga xam ne ñam yi des sa gémmiñ mm-hmm. lañ bañ mu des di yàq say bañ mm-hmm. kon nit ki su lekkee xëdee ba noppi mën na ko def bu reeree ba noppi mën na ko def mm-hmm. waaye jërul nag nelaw ba yow ci ramadan di jëfandikoo daan firis ndax lu ci jàll ba ak sa bool yi day dagg sa kaw dañ koy sib war na taxee am na solo moom naka noonu sib bi it xëyee janaaba ba dagan nit ki mën naa eh, am janaaba ci guddi li gën mooy mu sangu balaa fajar mm-hmm. waaye bu sëñ bi asamaan seetee nag baax na waaye si li gën moom mooy mu sangu balaa balaa fajar jot mm-hmm. kan kan la warut moom koor ku mënut mm-hmm. kooku nga xam ne mënut moom nit koo xam ne dafa màggat ba mënut dem wàcc na nañ bis bu set mu joxe six cent vingt cinq grammes ceeb mooy six cent vingt cinq grammes mooy liibar ak xaaju gën wàll liibar ak xaaju gën wàll liibar waaw ceeb sopp nañ koo xam ne daa màggee ba mënut woor war wàcc na ko bët bu set ma joxe loolu rek. waaw sopp rek na waaye war ko nag. Mhm. naka noonu ku wéradi nga xam docteur yi xam nga ko ne yow mii mënoo ko. ci mhm. benn waxtu ci waxtu yi daa am wéradi goo xam dal amuñ yaakaar ci ne dana wér te mënu ko boole ko kooku ko wàcc na ko. Mhm. kooku it mën nañ ko jàppee comme mag moom la. day joxe yow su ko manee waaye waru ko nag. Euh, ki nga am na ñoo xam ne dañ leen di sant ñu dog waaye boo léegi ñu fay mooy jigéen ji am ngànd ramadan du woor mhm. saa bu gisee baax heure bu gisee ci bëccëg ramadan koor ko yàqu na mhm. la des ci bëccëg ba sañ na ko lekk na loolu yeexee mu fay ko ëmb ak kii nàmpal ak yooyu jigéen ju ëmb baa muy nàmpal bu gisee ni koor ga day jeexital ci ci lor ci lor ji maanaam doom ji doom ji naa lor ngir koor gi mhm. war dee foofu da koy war bu dee nag day metti ci moom rek man na sañ naa doon fekkoon fekkoonte bu wooree du yàq dara du du du ko wàññi dara moom du waaye nag dana métti ci moom sañ naa daw su jàllee mu fay mm-hmm. bu dee kii nampal moom buy fay it day boore waale joxe mudd mm-hmm. waaye ki nga xam ne dafa ëmb moom loolu wéradi la mm-hmm. kooku buy fay day fay rek bis yi mu war a bis noonu nit tukki tukki bu sori fu mu dem ci yoon wi mën naa wàññi fu mu àgg te amu fa ñe ñeenti fan it sañ naa wa sañ naa wàññi sañ naa dog koor kon ki nga xam ne ki sant mu ma sañ wàññi mu wàññi julli kooku may nañ ko mu dog ko war waaye nag borom bi daa waxoon ne wa an tasuumu xayrun la kon uh-huh. kooku moom ki na ci dox woor moo gën ci moom su ko neexee nag dog uh-huh. waaye su xasee ba woor nag moom mooy ki xam ne guddi gu jot day yeesal yéene bu uh-huh. juuban moom ndax bu ko neexee ne suba du woor kon jokkale koo ngi waru su ko neexee woor tey bu subaa mu dog ngay meloon ndax buñ ci tukki bi waaye nag guddi gu jot kon bu bu kii day day fas yéene woor suba kon sëñ bi euh, nga laabiré ñu ci xam naa waxtu yi la mu jeex waaye yan teggin yi war war a làmboo ci biir koor waaw teggin yi di bokk na ci moom xam naa jaam bi xam ne daal daa woor mhm. euh, bàyyi xel jaam yàlla yi mhm. saa bu amee ngànt ba wóoroo it yamala ko ci bopp sa mag ñu bari fii tey àgg na ci nit jigéen dana na ci barab bis yi mu kenn du ko xam mhm. loolu mag yaram yaroon nañ ñi la am na koo xam ne bu wóor fokk si rek moom day wax ne ma hmm. ngay lekk ci kanam nit ñi ma ngay def nangam loolu duy teggin xotti war may koor ci mbedd meeg waaw loolu duy teggin bu hmm. amee ngant ba am ngant it looy def suturaal ko mu gën hmm. su ko defee warmal nit ñi na yoo xam ne nii awra ji wuñu ko la jëru wuñi am na ngant yoo xam ne la loolu ci la bokk bokk na ci teggin it bari la ci jàng alxuraan ak moytu nag bokk na ci yi ñu waroon wax yoo xam nit ñi bu ñu wooree tifli yu bari ñu hmm. xam du teggi ay tifli it fa sëñ Abdoulaye du yàq ko hmm. boo ko dajale ba bari nga wann ko yàqu tax sa nag jërul saa boo wooree di tifli rek ñu mel ne hmm. law yi moom boo ko wanee day yàqu du yàqu ko te nag dafa dàqoonteeg wér-gu-yaram dafa dàqoonteeg ay teggin daal moo tax yu mel noonu ak di sotti foo toll di guus socc léeg-léeg nga toog barab fu ñu daan daan des loolu saa boo yeewoo ci nelaw soo toogee lu yàgg di wax wala nga nopp lu yàgg daa diggante yu ñu ko socc da ngay toog def ko raxas socc bi nga lax ko mu jeex waaye ñu bari fi ne tey bu ñu xëyee um la nga koy xamee mooy socc yi seen génn waaw day gis ñu gàddu socc yu rëy socc yu rëy ngir wàll ne ma woo <laughs> waaw ña ngay ña ngay daan dal buusul ay yëf yooyu it naa moytu yëpp du du bu ko ay teggin daal ko defee nag euh, fexe ba it euh, yokk sa sa worma sa ma sa digganteeg sa borom euh, ci ci ci yu baax yëpp loo ci mën nga di ko def gën a moytu safaan yi fonk yi dimbale ibda salaam ak tabam loolu ñu xam bu ramadan mosaan dañ ko xamee sëriñ Tuubaa radiyallaahu ci roy yonent bi it noonu la meloon loolu it baax na bu ramadan dikkee lu waaye man ndax ni bàyyi xel sëyeblaat li ibda salaam wax ne dogal aji woor dogal aji woor boo ko amee da nga am tuyaaba ju toll ne koor ga moom masha allah kooku man ci lu baax it mm-hmm. ko ñuy war bokk na ci teggin yi am solo yi nga xam ne danga nga jariñu jariñe mm-hmm. am tuyaaba yu bare bari yoo dajale mm-hmm. it nag fañ jëm moom tuyaaba du ko doy ñu baax ñi fi ne nii luñ mën a liggéeyal yàlla waxtu wu ñu ngi wut lu ci doon ginnaaw ñoom ñoo doylu wut nag ñoo doylut ñun nga xam ne dañuy dëngale ko jubal waruñu doylu parce que yu mel nii war nañ cee xante woo fex ba luñ ci dégg ci baax rek ñu am mhm. fonk fonk bëccëg yi jàkka yi mhm. rawatina kon di jullee ci jàkka suñ ko bu mhm. buñ ko rek loolu la baax waa rawatina bu ko dëkkee ku dina beeroo dinaa filaal boppam mu dem ci jàkka ya jumaaye déglu alxuraan karim rawatina xéewal gu rëy gi nga xam ne ñaanuk sëriñ bi nangu na te dëkk bi foo dem jàkka joo ña ngi fay taal alxuraan bi mucc ànd ca yooyu lu am solo bu defee nag ndog yañ fay dafit loo ca mën a jàpp bul xeeb dara naaw yonent bi islam daa waxoon ne ku tabaxal yàlla néeg bu toll ne tàggum picc ma tabaxal ko pale ci aljanna hmm. borom xam-xam yi nañuy wax ne jàkka mënta tuute noonu waaye li ñu wax mooy ku participer ci jàkkalu toll noonu kon ni baax yi nag bul fekk ñu rangaay ndox yu bari nga ñëw juróomi doon def ko def bu ko xeeb juróomi doon yooyu mën naa jox doom tàndama dogal nit ku woor hmm, hmm, loolu yu wudul jeex jàkka joxe junni sorowul na ndax dogal nga ko war mu dogal yëpp ay ay ay passé baax la yoo xam daal mm-hmm. euh, teggin la ci jàmm bi daal moo xam ne borom xéewal na ko mm-hmm. bis waxtoo gi ni yoo xam ne bëgg na ko ci wane xéewal gi mm-hmm. nga bokk ci ko ci wane na xadis bi wax ne suñu borom daa bëgg bu dafalee ab jaamam xéewal jeexeeti xéewal ga ci moom dañ ci misaal sol ay sawarte rek man sol ay yiw waaye nag bul mën a joxe ba dappi joxe woo fu ñuy laaj lu baax nga man caa joxe téye day mel ne kon xéewal gi yàlla fi yow wane wu mhm. yëpp yam njar la say blad yoo xam ne mhm. ramadan daal parce que mbaax yàlla na ci yàlla àggale jàmm ndax ndax lu mel ne danga gis suñu jigéen ñi ci ñoo xam ne xëy na mën naa suñ bàyyee seeni tuñ mu wow wala yu demee noonu man danga gis ñoo xam ne dañuy koor ba noppi di niinal seeni tuñ wala yooyu maanaa loolu lan lañ ci war a moytu waaw lépp loo xam daal du jàll mhm. bay àgg ci bëli fii yàlla fi agsi nga di ko yëg muy sab yàq ko kon vraiment def loo xam ne ci kaw la yem. Mhm. bu dul sobe rek baax waaye bu mu doon sobe ñaare ba bu mu doon loo xam ne mën naa ragalaat dugg ba àgg. Mhm, mhm. moo ci matam incha allah jërëjëf sëñ bi am na solo lool kon xam naa ñu bàyyi la nga nga tàggatoo. ok jërëjëf sëñ Blaat xanaa ñaan yàlla àgg ci koor jàmm. yàlla defal ñu tawfiix it ñu man ko màng ni mu ko santaane. li ci nekk ci yàlla ci jot. ci siyaare baax nag sunu kilifa Cheikh Mahamadou Mountakha di ñaan su ko sàmm nga ko dëgëral. di siyaare baax mbokk jullit yi nga xam ne yëpp ñu ngi ciy yëngu di ndokkeel baax dawet Moukhaddamatoul Khidma ci taxawaay yu am mhm. xam ne tey bu ramadan dikkee wax dëgg yàlla dañ yokk seen yitte mhm. di ay nit ñu baree bari seen bopp la ñuy dimbale ndax la def lu baax mhm. ci ñoom la naa faral ne baax yi def yett xeeb ndax kenn defalul kenn dara loolu loolu nit ñi war nañ koo xam kenn defalul kenn dara lu baax loo def la ci diw yiw yaa ko jëriñoo boo liggéey nit ñi nag mën fi ci àddina waaye sa bopp ngay defal am solo la kon woote yu mel noonu naa ñaanal sant la mm. ñaan yàlla dëgëral dañ fekk ko at yu bëree bëri te mm-hmm. rafetu fekkin asalaamaaleykum mm. wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yéen noonu lañ leen ciy sante ndox liggéey bi ñoo koy ànd ci waxtu yu nekk eh, muy daayira Muxaddamatul Xidma ci conférence yu am solo yi muy waajal ak iftaar yeeg yooyu yëpp ñu nag yéen ñoo koy ànd kon yàlla yàlla gën a yàggal taxawaay bi te gën koo gën gën a dëgëral Euh, mbir yëpp ci barakat rasul kon mbokk yi mi ngi noonu seen émission gàggantiku tey jii dañoo ñëwoon jagleel suñu laaj ci wàllu koor euh, sëriñ bi tont yi ñu ci jox am na solo lool kon yal nañu yàlla may ñu dégg ko te topp ko te suñu borom def ñu dugg ci koor gi ak jàmm mu aar ñu may ñu ba lépp loo xam ne mooy ponk yi mu ci diglee ñu def ko mu ñu mucc ci saytaane ba bépp ndog tamit loo xam ne dafay yàq suñu koor wala mu di ko wàññi suñu borom musal ñu ci kon ñu ngi leen di di daje ci beneen émission gàggantiku di sant Sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam